شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس aouzu billahi sami alim min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq di leen baalu àq kenn ku nekk fa nga nekk ñu fekk la fa di leen a jàbb loxo di la ziar ci weeru koor gi nga xamante ne moom mooy waaj a teru xam nga ne weeru koor nag bu toree ñu wax jaamu yàlla bu am solo ba tax na canal banlieue fas yéene soppi programme am inchaa allah fas yéene leen gunge ci biir koor gi duñ ci sori dañ ciy ànd ak oustaz Mouhaaz Fall bi nga xamante ne moom moo yor wàllu diine fii ci canal banlieue mu wax leen programme bi nan lay tëddee ak lépp lépp lu ci war nan lay demee waaleykum salaam wa rahmatullah ñoo ngi lay sante bu baax si cadre yi rafet yi nga xamni mom nga yëkëti comme ni ngeen ko xamé yeen ñëpp ñi doon top seen émission bi ndaw ak diinem ngeen xamni canal balé mom dafa yaga ubil buntum diiné man na ni koor rek bo leen diiné waaye nak comme wéru koor wéru jaamu yalla la wéru diiné la motax ñu sans seen programme yëpp bu ko jagleel diiné xamal nit ñi si noonee kat ñu jox xale ak seen cër si euh, ci koor gi daal leen organiser ben concours bu tudd xayma xam-xam concours bo xamni kat lan fay laaj. dafay tënku si diine waaye dafay tënku li xew si jamono ji ak si dëkk bi waaye tamit ak si histoire kon du mu bàyyi lu jox rek Moussa Sagna mu joxe numéro yi nga xam ni ku si bëgg a bokk noon ngay def ba bokk si. waaw incha allah ku bëgg a bokk ci boobule programme da ngay woote ci numéro yi nga xamante ne moom lañ leen fas yéene jox ah, numéro yi nag bi ci njëkk mooy 77 067 86 37 77 067 86 37 beneen numéro bi ma baa ma ko mooy 77. vingt 557 98 25 77 557 vingt 25 di leen fàttali ne ubbikaay bi euh, commencé nañ ko ubbi maanaam mbindukaay bi commencé nañ ko ubbi ba incha allah fii ak le 11 ci la ñuy jeexal nag fa yéene amal li nga xamante ne moom mooy tirage bi ngir mu mën a sotti lépp oustaz Mou'Aze Fall incha allah moo ko fas yéene doxal ànd ceeg Canal Banlieue ak ñëpp ñi nga xamante ne ñooy julliti Sénégal ak bitim réew kon nag boo ko kenn tardé asalaamualeykum wa rahmatullahi taala